donc mooy dem gën di coupe donc mooy dem moo doon incha allah li ñaan yàlla rek mooy dugg si bismillah rahmaan rahim génne si alhamdulilah rabbil alamin bëgg-bëgg bi lenn la ànd wuti ndam li ca coupe du monde beach soccer gaynde yi jot nañu tey si ajuma ji drapeau national fas yéene jubali Dubaay fa jongante bi di amee jëwriñ ji ñu dénk tàggat yaram di ñaax xale yi ñu taxawal fa seen réew ci gën caa rafeti anam nga xam ni bu ñuy dem di jongante ji ci yu mel nii dafay dafa nekk aada ñu dajale toog ñaax leen soññ leen jox leen raaya réew mi muy drapeau national Sénégal donc euh, loolu aada boobu la ñuy ñëw di feddali tey di ko continuer mu doon jotaay boo xam ne jotaayu soññe lay doon jotaayu ñaaxaate ci ngeen xam ni da ngeen di dem pour représenter Sénégal ngir ñu mën a am ay raaya yokk ci li nga xamante ni jot ngeen ko def ci wàllu football ak wàllu beach soccer. loolu mën a nekk bu nu xoolee mën ma ni xale yi ak seen nekkin. am nañ yaakaar sunu xel dal ci yéen comme ñi ko ñi ñi jël kàddu ni ñu ko waxee suñu xel dal na ci yéen am nañ yaakaar ni tàggat nañ leen bu baax a baax a baax pour ngeen mën a dem foofu def fa ay résultats. loolu lu ma xam la ndax moom sàmm mi léeg-léeg dama koy woo mu ne ma wala mu woo ma ne ma dañ nekk regroupement dañ nekk regroupement ci beach soccer donc man fa ma nekk xam naa ni beach soccer am nañ préparation boo xamante ni préparation bu mucc ayib la boo xam ne war na leen mën a permettre koo leen jàkkaar loolu ngeen dox ci kaw. ñu am juróom-ñaari yoon ndam ci Afrique gayndey beach soccer yi bëgg wuti ndam lu njëkk sa coupe du monde gannaaw la xew sa Yamoussoukro goney Mamadou Diallo yi bëgg delloo si mbégte si xolu sénégalais yi.